su time dogu jotee ni ñu bari ñoo dee kontaan pour dog seen koor bi waaye nag wax ne ne sooy dog koor bi ni war nga koo dogee tàndarma Birmingham City University ñoom neen ne tàndarma dafa neex te baax na def la dee sawarloo boo ko jëfandikoo gannaaw koor bi booy dog dogee ko tàndarma ndaxte sunna Muhammad la mi nga xamante ne moo nekk yonente bi loolu nag tax na dem nañ si marché waxtaan naa ni ñoo xamante ne ñoo dee jaay tàndarma wax nañ ñu seen jaay bi nu mu nekk di demee eh, times ɗi goo kadi wano last year hari tandarma no manque wano before last year si ay at yo passe e leydi ga hamne mone ka jaayi at tandarma darlalu ga hamne business bu la won ate nag maa ngi fàttale ko at bu passé ne maa ngi jënd ay tàndarma yu bëri ate nag maa ngi ko jaayee si njëg yu yomba ate nag maa ngi daal di ñaax ñii di xam ne moo nekk ñu dee asi tàndarma yi ak ñu ko dee jaay pour ñu wàññi lii di xam ne moo nekk njëg bi surtout si weeri koor bii nii te nag ñu bàyyi di nu ba lii di bagage yi nii nag loolu yëpp ngir pour bugg a yokka a njëgi price bi àtte naka nguur gi war nañoo daal di wàññi lii di lempo buñ dee daal di fay si port bi niki sax loolu daf te gën a waral price bi yokku. three maa ngi jaay every year koor maa ngi jaay waaw bon business bi mu ngi doon ndànk ndànk mais xam nga léegi ni weer koor bi rek soo ñëwee xam nga jaaykat tàndarma def dee bari gis nga loolu moo. loolu moo ma jaaxal quoi parce que yëpp même si borom pousse pousse yi nii da nga dee bàyyi pousse pousse. bu baax a baax a baax waaw comme daan na gën a dem si kanam mais instant moom ren demut bu baax mais daan na gën a dem daal mais sant yàlla ñu ngi jaay bu baax a baax a baax da démb bu xëyee jaay nañ 20 carton te tey tamit li ñu génnee woon lu mu dee dee génne woon nañ 25 mais boo xoolee ten moo fi des waaw sant yàlla bu baax ñu ngi si góorgóorlu tamit waaw xam nga. corona bi dal xamna naa ne moo kii lu bari waye sante yalla dal ñu ngi. pam bu ku nda Jaman mos basilu Dramé mom tamit wax nañu doge tandarma num mu ci dina islam. that is not obligatory I mean it's it's it's the prophet uh, instructed us to try to break our fast with water. yonent yonenti joxe na ndigal bi nga xamantene ne mu ne nit ñi suñu dog suñ koor ñu dogee ko tandarma wala ndox. jamono bu mu doon wax noonu yooyu ñoo nekkal layka si biiri màkka waaye nag tàndarma dafa seer torop ba tax na ni ñu bëri mënuñ koo jënda pour ndogoo ko waaye nag yonente bi waxu tàndarma kese waaye dafa lim ñaari nga xamante ne loolu la nit ñi mën a jëfandikoo pour dog sa koor bi bokk na si ndox ak tàndarma si diina islam wax na ne soo mëntee jënda tàndarma pour dog sa koor mun ngaa jëfandikoo tii nga dog sa koor bi ndax nit ñu bëri mun ñoo biir réew mi waaye nag ñu bari ñoo ko dee jëfandikoo sakatuma weeri koor lu waral seeraay bi nag bokk na si duñ ko dee jii si biir réew mi waaye dañ ko dee jëlee si bitim réew nit ñu bari ñoo dee jënd ak njaay tàndarma surtout weeri koor sooy dog sa koor commencé ko tàndarma baax na torop ndaxte daf dee dimbale si wàllu xiif ak tamit dimbale la si sa yaram bi sakatuma si weeri koor Paradise TV News Madine